والسلام على سيدنا ومولانا محمد امين وعلى اله وصحبه اجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom bu baax di julli ak sëlmal ci Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam di mu nangoon suñu koor ak suñu yàlla yëpp te jéggal na maa ngi leen di fàttali sama bopp te di leen fàttali ñu waxtandi ko borom bu baax ci ndigalam yi te watali ko bu baax ci tere yi mbokk yi ñu xam ñun ñëpp weeru ramadaan mu ngi tàggu xëy na suba ca ngoon du seen bu njëkk mu korite gi war a nekk kon bu ko yàlla dogalee dimanche wala altine fi noonu incha waaye li ci des bu ñu ci jaamu sunu borom te ñu ñaan sunu borom mu nangul nu sunuy jaamu yàlla te nangul jullit yëpp te mu may nu fekk waat ramadaan yu bari ci jàmm te da bokk farlu ci génn muuri koor yi comme ni ko ki jiitu doon waxe léegi balaa ñuy julli ji yonent bi saa saa moo wax rek kooru képp ci nun muxallaqun bayna samaai wal ard laa sa koor mu ngi nekk diggante asamaan si ak suuf si du yéeg ca ko nangu lu dul danga génne zakaati fitr muy muuru koor danga joxe ko balaa ñuy julli ji mbokk yi mu mel ni kooru ren gi mbas mi mu dajeel tax na ba ay tënk-tënk am na ci waaye lépp dañ ko sant suñu borom yàlla nañ bokk ci ñu koy nettali ñi ci faatu tali jullit yàlla leen borom bi jéggal te mbas mi nag yàlla nañ bokk ci ñu muy fàttali suñu borom ndax ñu bari fàttaliwu leen bokk jullit yi war nañu fàttali bu baax aay bii may bëgg a jàng suñu borom bi wax na wax tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu suñu borom nee na mooy leen néew téye leen mooy leen la wax téye da ko def mbir mu rëcc waaye mooy moom néew na nga def ko dara mu rëcc li mu bëgg ñu mooy ci ñun ñëpp mooy bi hablillahi jamian wala tafarraqu buumu suñu borom bi mooy mooy sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi bu leen buñ ko defa nañ ko defandoo ñun ñëpp bu ko ñii def ñee di seetaan bu ko ñii def ñee di doy lool defam des leen ci julli ñi dafa mel ni mooy aaya bi ñu gën a déggal ci alxuraanu karim moo ko sey Seydina Muhammad mu wax ne jullitu kenn ci noonu du mat lu dul li mu yéene boppam lay yéene jullit ñépp ban ak jullitam du mat jullit warul a dara loo xam ne benn jullit daf koy dégg moom di ko beleesi ci xolam wala mu yëg ne lii muy dégg dañ ko ciy xeeb wala ñu def ko ci naqaram loolu benn jullit waru koo génn ci làmmiñam li ñu seetlu mooy su koor gi jotee ni ñu koy defee ci plateau télévision yi ku ñu invité nga ñëw di yëkkati sa kilifa ngir wane moo gën ñëpp soo liggéey ñu invité ñu invité mu ñëw weddi la nga waxoon ne kilifaam moo gën loolu benn bit waru cee bokk ngir kenn rek moo ci bénéfice mooy borom tere ndax ñoom bitig lañu yor dañuy jaay seen marchandise waaye tare ay ñoom du jur ca seen biir lu dul mbañal tarixa moo ngir yii ñu nekk ñoo yëpp ngir imam Malik ak Shafi yu mel noonu benn lañ foofu nekk te sellal am nga ne suñu kilifa bu baax rek daf na ko misaaloon ne tarixa yi ñu ngi mel ni ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi nga bëgg a tam kii bàyyi kee te borom bi te borom tele yi seen yoon nekkut ñoom ñu lay invité yow nga ñëw yëkkati sa kilifa xeeb kilifam jàmbur su ëllëgee noonu la ñuy invité moromu làmb bi ëllëg ñu invité musicien bi ëllëg ñu invité fecckat bi fexe ba nit ñu di leen seetaan bañ jaay seeni produit rek moo seen yitte kon jot na li kilifa yu mag yi wax ci ndax li mu yàq bari na doomu aadama nag boroomam moo ko moom moo ko moom moo ko bind te sepp ko kenn waaye daf ko bàyyi ak liberté na ko lu la neex gëmal mu gëm te weddi ko weddi suñu borom ku ko mën a def itam du tax mu rey la ak lu mu la mere mere te sa waxtu jot du tax mu téye xéewal bi tam ci yow ak lu mu la mere mere li muy jox ci xéewal adduna yi ñu ko weddi joxu ko sax jëfandikoo te nekkul jullit nag mooy farata waaye laneen lool boo xasee ba nekkul jullit doo nekkul itam suñu borom dina ko laaj ëllëg suñu borom wax ci alxuraan alxuraan karim ne wala tamutunna illa wa antum muslimun lu mën a xew bu leen faatu mukk te nekkul muslim la wax mooy jullit boo xam ne da nga jënd sa lépp sa borom te sëriñ Tuubaa dafay wax na wérdi yi nee na wérdi yëpp a baax yépp ko sunu borom lañ jël muy wu xaajir te jaar yëpp moom sëriñ bi su ci gisul na ci mag ñi nga xam ne ba ñu jébbaloo te yore wérdu xaajir daf leen di daf leen ko digal gi ñuy xàjjale tariixa yi rek ak na a ci dañu bokk gëm ñun ñëpp sax muy laa ilaaha illallaah kenn boo ko li bu ak sa morom noo koy wax ku ko ci wax ñu xam faa bokk Sëriñ Tuubaa nag bokk na ci li mënu digaloon te bind ko bàyyi ko bi mooy falaa tuaadu man yi ko gëm nun murid yi ko gëm koo xam ne gémmiñam ma ma ngi wax laa ilaaha illallah bu ko noonu kon murid buy wax lu ñaaw benn jullit ak bu mu mën a doon xëtt nga digalu sëriñ moom sëriñ bi nag kenn mënu koo tooñ tooñ ko tollee di ko tubaab yi tooñ def leen jiite kon bu ko kenn fulool bu ko kenn xeexal xër nag dafay xajam ak diine xeebaat bi dafay jur mbañeel te ñaar yi rekk fi nekk koo dajal kenn ci ñaar ñi ki nga bokkal tariixa ak ki nga ko bokkalul ki nga bokk ki nga ko bokkal moom jërul campagne ndax yéen a bokk lu rek ki nga ko bokkalul moom moom daf laa daf laa yërëm jàppe na ku réer ndax dafa defe ne boo gindeeku woon fekk si ko te ki nga defe ne daf laa yee te fekk daf laa yërëm du leen kaw gindeeku te sunu borom ay ngëneelam bu jeex te ku ko neex na koy jox raw ci raw ca nit nag wala nga ëppale ko ci ko ca téewul muy jàmbaar defe ne sa kilifa dong moo am ngëneel fa sunu borom nag loolu mooy njuumte lu rëy te bare na kuy fëggut dënam defe na taaliba bu mag la ca tarixa ba bu nekk te borom tarixa ba suy lim ay taaliba du ko limaale te saa boo waxee ne sama kilifa moo gën ci kilifa yëpp sax sa bopp ndax kon moo fi war a gën ay taaliba te lenn li nag dara lu may yàbbus Sénégal yàbbus dafay bëri loo wax ñu ne dara lu fi xew ndax mag ñu fi tëdd mag ñu fi ndax am nañu ay waajur am na ñu leen fi magoon seen waajur leen magoon la leen seen borom jaral nag la jaralul ñu bari waaye mag ñi tëdd bi du tee suñu borom def coobareem nu mu ko neex te sax demoon tey Iran wala Irak wala Israël ak Syrie yonent yu baree ba ñëw ko yoo ko am demul fenn dara ci àdduna damu ak xeebaar nag jëru ko bis pénc bi suñu kanam ci suñu kanam la nekk suñu fa demee lépp leer ku nekk xam xale ak gën a gën jërul yàkkamti yéem sa kilifa nag roy ko moo ko gën ku ñu mënul a roy amul ne kon moom la ñu roy loo suñu borom loo néewul nag dee ko seetaan ak di ko yéem dee leen ko roy la wax suñu borom amul dara ci biir alxuraan bu bi saa sam ak pay ñu koy roy la dig ak pay te suñu mag lañu bàyyi suñu borom nag bañ na lool ku yëkkati ay jëfam di ko naw ak di damm mu na ne inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura te yéem ak roy nawet moo leen su nawet jotee ñëpp ñëpp ji dem demoo ji xanaa di yéem gàcce ma xam ne roy ak yéem lu loolu moo tax Sëriñ la nee benn yi dama koy takk Sayyidina Muhammad juróom benn yi ma di ko julli ci moom waaye maa ngi ci saa nee na damay dama koy roy lépp lu ko sunu borom jox na ma koy defe laa koy defe du ma nangu mu man ma jox kooku kon daf doon roy yonent bi saa nekkul wuti ko yéem te lu ci bari topp bànneex rek la bànneex boo xam ne maa anzalallahu bihaa min sultaan in yattabi'uuna illa zanna wa maa tahwal anfus benn lay bu ñu ci mën a indi bu jóge sunu borom nekk topp njort rek la ak topp seen bànneex ak topp seen bakkan te topp say bànneex rek kenn du ci am ngërëmul sunu borom fent nooy jàmm yàlla itam réccu rek la jur bi nee na ña boole woon xër ak réer muy nasaraan yi ba sos ak labbe ci seen diina jooju nee na dañ koo defal ngir di sàkk ngërëmal suma borom borom bi nee na farataaruma ko ci ñoom waaye ànd ak lañ ko ñoo ko fental seen bopp waaye mënuñu koo sàmm dëgg di sàmm wa rahbaaniyatan ibtadaawhaa maa katabnaa alayhim illaa ibtigaa'aa ridwaanillaahi waaye fa maa rawhaa haqqa loo fental sa bopp mu diis ci yow sunu borom mi ne bind moo xam li nga attan lim la teg rek ngay attan sàggane farata ak sunna fekk ci daal miim gu rëy rek lay jur yomal xiyam borom bi nee na ku ko bokkaale fii ci àdduna di nga ko miim yomal xiyam day fekk mu weesu ba yomal xiyamati yakfuruuna bi shirkikum kuy xeeb naw leen ma ngay naw boppam noonu jullit ñi ñu ngi gën a am kàttan ndax ñu ngi gën a booloo ñun jullit ñi ñu ngi gën a fasaaroo di gën a néew yàq lu ñu lu toll ne dañuy yàqante noonu jullit ci suñu biir bi ñuy dund fii mu ne adduna bi yépp maa sa taxaw dara doxul kenn mësu koo gis ba adduna soso ba tey suñu borom dina bi dina xame ne moom dong mooy alxaayiru faw xëy ba mooy ki not jaamam bi ñëpp kanamam tey jii mu teg na lu kenn mënu la teg waroon na noo fàttali suñu borom wërit ñuy toog ci cele ku nekk naan sama kilifa gën sa kilifa di wedd sa kilifa morom waaye doomu aadama dafa dëgër bopp bu tiitee minute yu néew mu génn ca delluwaat ca la nekkoon di ko layal moom di ca boole borom bi nee am na ji nit ñi ñoo xam ne su asamaan si defoon ay morso di rot ci seen kaw itam du tax ñu tiit dañ koy layal dañ koy layal dañ naan ah lii de xam naa ay lii yu tegaroon rek wa in yaraw kisfan min as-samaa'i saaqatan yaqulu dara ci waxtu toroxlu ak ñaan ci lañu toll borom bi nee na ba ma leen tegee sama ay muy mbas mi lu te ngeen toroxlu ma teg waraw laa is jaahum baxsuna tadarru waaye li fi nekk xasat xulóobu nee na xol yaa wow duñ ciit mukk wa sayyara lahum la ñuy jëf dara baaxut na dara ko rafet jëf waaye seytaan bi ko rafetal ñu loolu nag moo yàpp loolu kon mbokk yi lépp luy sabab mbañeel nañu koy daw jikko yu yées yi la moo tax suñu duggee aljanna am na am na jabam li suñu borom bi njëkk dindi ci noonu mooy ak mbañal wa nasaxna maa fi sudoorihim min xillin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa sallam